ndaw góor ku bëgg noppalu doo iñaan ah, moo yàq réew mi nag Sénégal dama ni am na cat bu ñu topp waaye dugg si na léegi daf ñu toppoon rek nag waaye wax nañoo wax a wax ba mu yegg si faf cat daf ñu dugg bu metti te li may wax ñépp xam nañ ko wax ju ñaaw saaga ay gor sosal ay got wax loo xamul lu yàlla jox jaamam ci cër nga ni lu tax mu ko koy jox yàqante tibbante tànk maa ngi koy wax mbokk yi sànq damay génn sama kër léeg-léeg di def marche fajar gi ñëw ba ci angle bi ma gis benn njaq bu ñu teg wërale ko ay nen ma ne nen de ma ci xamoon sur le plat wala omelette kon bu ñu demee ba di ko indi fii xamuñu njariñ ñu nen benn bis ma génn sama kër duma ko fàtte mukk am benn jardinier bu fay ñëw di ma taayeel kër gi buntu kër gi ñëwul ma sant ko benn xale taxaw ci balcon bi di ko seet ma jékki-jékki gis mu génn ci ay téere yu ñu ëw ay bouteilles ma ni kii lu ma joteeg moom ba mu may def lii lan nga ci mën jël ay liggéeyam sëf ba mu fees mu indi ko ca sama biir kër ca ca buntu kër ga wékku ko ci garab yi ma ni ko waaye doom da nga xamul li xew boo jàppee ni Paris Dakar lañ ma boote xamuloo lu xew li xew nga dul xam lan la te il est temps ñu bokk toog waxtaanaat waxtaan bi nag lu jafe la ci Sénégal ndax boo waxee dëgg sax ñu ni dafa tàng xol wala dafa am ku muy gaaral wala dafa am ñu tax muy wax araam na koy naan sàngara taxul xam nga loolu mooy lan waxante dëgg monsieur le ministre yéen a nekk ci bopp nguur gi yàlla la soob qul illahumma malika al mulki tuuti al mulka man tasha wa tanziu al mulka mimman tasha wa tuizzu man tasha wa tudillu man tasha biyadika al xayr innaka ala kulli cheyin qadir léeg-léeg ma wax ñu ni moom day dafay gaaral gouvernement bi ma ni ndeysaan ils n'ont rien compris su ma leen meree wala ma contre leen lan la leen di wàññi tax yàlla jiitu na démb ba pare dogal na li muy dogal fekk na demewul noonu léeg-léeg nga wax wax naa naa ci gàmmu gi fii ci zawiya Cheikh Al Hadj di sant sama doom yii ak sama sët yii bokk ci kër Moussa Ale mbay ni leen nañu xam seen bopp ak fan lañuy dem ak fuñu dul dem ñu bari jël ko ci internet bi ci sama wax ni dafa am ñu ma doon gaaral ba kañ loo wax ñu am fuñ ko féetale du tax ñu noppi nag ndegam yéen a mën a yàq nag ñun ñu war a mën a defar qul la yastawi alxabiisu wa tayibu walaw ajabaka kasratu alxabiis kon ñu dalal la jàmm monsieur le ministre xam naa la yàgg na gis nga yàlla ndekete mi ngi la préparé loo xam ni yow xamoo ko woon man xaw ma ko woon su ma la ci iñaanee fu ma jëm waaye dafa fekk ni nag ñoo bokk réew mi ngeen di bay ci wàll wi ñun ñuy bay ci wàll wi waaye bu ñu boolee suñu effort ñun ñaar tawfiq am waaye bu ñu seetaanee rek lu bare yàqu lii rek la kon ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm di nuyu aussi parti politique yi nekk ci réew mi yépp ndax sëriñ Saaliwu Mbàkke radiyallahu taala anhu moo daan wax ni kuy far waroo kuy atte du far ku war a atte du far ñu ngi nuyu bu baax a baax suñu mag Mouhamadul Mansour Mbay ndeysaan yàlla na yàgg rek di fi ñëw ñuy wéttalanteeg moom mais Mansour gëj naa gis sama basin ba dafa daan def ndeysaan at bu nekk mu jox xale yi benn pisu 10 mètres basin waxuma basin yi gars yi di solan dafa am yaa basin et basin ah waaw ndeysaan ñu ngi lay nuyu bu baax Mouhamadul Mansour di nuyu nit ñu baax ñi fi teew ñëpp ma ni mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ñu tax daje yonent boobule en tant que ay jullit ak lii di xew dama japp ni li moisi ñu ko yóbbee mooy sori bu ñu sore ay jàngaleem gis nga yonent bi 23 ans yi mu def gannaaw bi ko yàlla yónnee état islamique bi mu fi tabax lu nit bañ bañ bañ l'islam lu nit bañ bañ bañ yonent reconnaître la ko ko sang pire la وإنك لعلى خلق عظيم موم لاكو يالا واخ ني نك سماما داق ديو سماما ديف لي سماما ديف لي تا كات سمام داق نانكو بيتك تا كين لاكو واخ واي يالا موم نيكو يوي ييب امول سولو لما خم بخم كودال وإنك لعلى خلق عظيم مشي لمينيستر غناو يونتي بي عليه الصلاه والسلام بيمو генي ادنا te jullit ñi jaaxle Seyduna Aboubacar rek moo dese woon sago Seyduna Umar yore jaaseen ni ku fi neeti yonent bi génn na àdduna ma la Seyduna Ousmane wala Seyduna Ali kii lafañ ki mënatul jóg fi mu toog kii muuma Aboubacar dellu dellusi fekk mu génnoon ba mu dellusee ñëw ñu ni ko sang baa ngi ci biir ndeysaan mu ñëw sukk ay oomam di foon jëbi diko wax ni ko tibta hayyan wa mayitan dal di génn nak Umar ni yore jaasi ji rek mom di jabante ni ku ni deena rek ma rey Abubakar ni ko ma muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in aw qutila in انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين مشي لي مينستر ma doon wax ni Seydina Aboubacar keroog bi mu mo jàng aaya bobu xel yépp ci wat fala umma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ba mu jeex xel yépp ci wat kérok nak bi ñu dencé sang bi sayyiduna muhammad ba nit ñi jaayante jaayanteeg sayiduna abu ni siddiq man damay wax ni képp koo xam ni homme d'état nga léeg-léeg war nga déglu discours Seydina Aboubacar boobu ndax bi mu sante yàlla ba taxaw ci minbar bi dafa ni ayuha nnaas qad wullitu alaykum wa lastu bi xayrikum in axsantu fa ayinuuni wa in asatu fa qawimuuni dafa ni gaay bés ni tey fexe ngeen ba ma nekk fi ci seen kanam gënuma leen nag yéen a ma fi teg ñaar rek laa leen di ñaan bu ma defee lu baax ànd leen ak man jàppale ma su ma jàddee yoon tegaat leen ma ci yoon benn sàmm sàmm moo yore jaaseem bocc ko ca gannaaw jàkka ja ni ko hey bakar ñëpp gestu mu ni ko bis boo jàddee bii la ñuy defanteeg yow ba nga delluwaat fi yonent bi nekkoon yonent boobu nag lii mu ñu jàngal yépp ñun li ñu xam ci gàmmu léegi sañ sa ñëw toog nga dajeeg nit mun la waxtaan wa neex na waxtaan wu neex fu ngeen ko mës dégg waxtaanu qaala allahu qaala rasulullahi du neex ñun li ñu bëgg mooy bu ñu fi jógee man mii di wax nag sama bopp laa koy doore waaye wax ju dul jeex te gën a sikk ñépp nañ ci yàlla musal bu ñu fa jógee kenn ku nekk war nga wane lutax ñu xam ni bés tantal nañ sang bi nga am loo fa jànge waaye ku fi jóge rek faxasu dem sa yoon lekk ci cere jeeg yàpp bi waxtaan wa neex na gis naa diw nangam ak nangam tapante pasu loolu dafa xewi fi jamono tollu léegi kenn ku nekk war nga mën a seetaat sa mi bopp kenn gënu laa xam sa bopp te loo xam-xam demba ma demba gën laa xam demba sénégal lii ñuy seetaan di ko bay bayal attention benn kilifa diine mënatul wax ku wax ñu dal ci sa kaw ma ni ndeysaan gaynde gaynde dafa rëbbi lekk ba suur ñëw tëdd ci taatu garab di dajant ndekete ci taatu garab bi golo ngi fi benn doomu golo yaay ji daf ko fi bàyyi xam naa dem moom xamul ni gaynde la yenn saa yi nit nii rek mu jàpp ci nopp bi xëcc tëb yëgaat ci kaw di ko def ba bukki di romb bu yem ci loolu taf gémmiñ gi gayne yeewu mu ni ko nijaay gayne waa kii moom mu ni ko bàyyee ma ma xam moom xamuma ku wax ñu saaga dugg nañu ba ci suñu yaakaar yi ñu am tey jii te ñun jëggaane wuñu lenn fenn suñu mag ñi ñu am doy nañ ñu sëkk ndax fa ñu tegoon seen tànk fa yonent bi tegoon tànkam fa la ñu teg seen tànk Cerno bashir yàlla na fi yàgg moom itam te njool fuuta daf ma yebal fan yële Richard Toll ba ma demee am ma grande surprise mu jékki-jékki yegg si ndeysaan ci dal bi ci yar bi loo yaru yaru boo toogee moom defaraat sa jataay ñu noddu mu ne ma doxal ñu julli ma ni allahu akbar ñeme wu ma bañ li ak man ni ma dëngee ma ni yàlla ndigal rek tax may def lii de mu ma jiiteel ñu jiiteel ba pare pare ñu ni na waxtaan mu ni déedéet ani Habib ma ni ko maa ngi nii mu ni waxtaanal ma ni ko cerno lu may wax ci sa teewaay xaw ma ko mun ma waxal rek jox naa la ndigal loo wax baax na ñu pare ni ko mu ñaan mu ni ani Habib ma ni ko maa ngi nii mu ni ma ñaanal muy jàngale boo xam ni kuy nit boo fa jógee di nga seetaat sa jikko kon Seydi Taal ñu ngi leen di dalal jàmm ñun dañu gimmi rek ñun dañu gimmi rek suñu bàyyi mel ni mu mel ci Cheikh Al Hadj Omar ñu dégg suñu maam Cheikh Al malik ni mu mel ci Cheikh Al Omar kon fii kaddu yi ñuy yëkkateeg yéen sax ci kaw ñu ngi koy jéggalu ndax xorma la xaqiqa la nag sëñ Cheikh Tidiane si nee na ku bëgg lu nooy ba faaw da ngay dem ci sharia mais boo ñëwee ci xaqiqa loolu laal mu dëgër mbokk yi yonent bi mission bi mu def gannaaw bi ko yàlla yónnee boo ko xoolee suma juumul 23 ans la mu taxaw fi lim fi taxawal yépp gënoon a wàcc ñëpp te mënoon a diis ñun rek ngay gis boo yegsee fële léegi ñu ni Habiba ngi ñëw ngay jéggat di dem moom nag xaysun taha majlisun abdu xaysun taha majlisun li nee na la fadla li arabiyin ala ajamiyin illa bi taqwa yàlla tegal ko ci ni ko inna akramakum inda allahi atqaakum kon complexe warul jullit li fi nekk nag mooy ñun ñoo waroon joxe un bon exemple malheureusement ñun jullit ñi ñoo fi gën a bari wax gën fee doy waar loolu la yàlla dogal dangay dugg ci jàkka summi fa sa dàll wala nga ñëw ci tànt fii ñu tàntal yonent bi sa téléphone réer réerul jullite ko sàcc ci tànt bi def ko ci poosam te kat nee dafa sàkku si tuyaaba nga dugg ci jàkka ñu sàcc fa sa téléphone te ki ko sàcc daf doon julli si ana njulit gi ana jikko ju rafet ji mbokk yi senegal ñu bare ñeewoon nañ ñu mais ñu ngi koy bëgg a yàq su ko defee ñu ñaan yàlla ñi nga xam ni ñoom la fi yàlla teg ak ñi nga xam ni ñoo nekk ci kuje gi ñu toog autour d'une table waxtaan wax dëgg yàlla bàyyi xel askan bi waxtaan ci seen biir parce que am na loo xam ni nag waxtaan rek ko koy maye du force ndax bu force doon régler kon keroog bi yonent bi demee sulxul xudaybiya ba mu yegsee mën na jaayanteeg yéeféer yi bakkanam mais defu ko dafa delluwaat dañ ko ni doo fi dugg te bu attaqué woon guerre yàlla du ko seetaan illa tansuruhu faqad nasarahu allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أيكو يال خيخ لي كون بو يوننتي بي خيخون ادنا توكي واي داد دي نانغو وانيكو وات كرو بي سي مكه نك اك فورس بي كو يالا ماي وا مكه غيسكو تخاو doj yi di ko seetaan ak montagne yi yonent bi ñëw ak mbooloo mi ñu jaxle tiit fu ne nit daw dugg fa ndax liñ ko wan ci lu ñaaw ak mettit bu yàlla bëggee intervenir rek mu ni ko allahumma xfir li qawmi fa innahum la yaalamun dañ ma xamul rek moo tax ñu may def lii bal leen bu leen topp ndax soo leen alagee kenn dootu la mën a jaamooti ci kaw suuf xoolal ma bii mbaax ak générosité mu ñëw abu sufyan nga fa woon ak ñooñ seet mu ni leen man daxala daara abi sufiyaana fa huwa amin topp ko topp ko ba seen xel dal ñu dajeek moom mu ni leen ma tazunnuuna anni fa'ilun bikum qalu khayran anta axun karimun wabnu akhin karimin mu ni leen idhabu fa antum at tulaqa bal ñëpp loolu mu nekk ay leçon yoo xam ni waaye léegi Sénégal boo génnee ci mbedd mi da ngay gis nit koo xam ni kanam gaa ngi bax doo xam loo ko def doo xam lu ko naqadi boo ko nee sa bët bi suuf a ngi ci mu ni tey ma jaay la sama bakkan da ngay dugg ci jàkka sàppe si ak li ci yonent bi wax nga ni nit defaral sa sàppe ak sil mu ne la loo ma ciy wax gënoo maa xam li may def ba kañ nañu delloo si xel yi mbokk yi bàyyi wax yu ñaaw yi bàyyi wax yu ñaaw yi bàyyi wax yu ñaaw yi ñaaw njort yi soxar gi kiñaan gi siisante bi yàqante bi boddante bi ndax wa anna hadihi ummatukum ummatun waxida wa ana rabbukum faabudu loolu la alquran wax moom la yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi duma guddal ñu ngi sant ñëpp jataay bi yàgg na te kilifa yi boo toogeek ñoom xeeb sa bopp ndax duñu onk duñu ñu jooy mais li ñu bàyyi ci ay yitte kenn xamul nu mu toll te fa ñu jóge sore na bés bi nag ñu jagleel ko Cheikh Al Hadj Omar foofu laay tëjee sama waxtaan sa mbàpp dafa nekk ci pont bi boobu mu ngi dund ma gént ci gént laa wax may dugg si ci kër gi dajeeg cheikh alxaaji omar jëmm ji loolu lañ ma war mi ngi ñëw dugg ba ci néeg ba nuyuwul kenn dafa ñëw jaar ci salle bi xëtt ba ci bunt bi mu ubbi kàccat dugg ci gént tiim sa mbàpp waxul ak moom lu yàgg jékki-jékki wàññeeku di dem ma topp ko ba ci poto lamp bi nekkoon ci buntu kër ga sidi karim ñanga nga fa woon di ñëw comme tailleur foofu laa dajeeg moom tàllal ko sama lox ni ko dama bëgg nga ñaanal ma parce que xam ni kii moom la mu ni ma lan ak lan nga bëgg ma wax ko ko duma leen ko nettali nag mu ni ma tàllalal sa lox ma tàllal mu ñaanal ma ma yeewu année ba ca topp ñu ànd ak sëriñ mbay bii tey xalif général di Tijaan boobu nekkagu ko de ñu dem gunjur gunjur ñu dugg ci jàkka ji def suñu ay ziar ba pare joxe ñaan ñaan ma génn wallahi wal quran al azim laa lay wax gis benn góor gu toog ci benn taatu garab lii moom nelawuma muy kama ma gisoon keroog ma daw ci moom tàllal ko loxo mu ñaanalaat ma ma génn dem sama waxuma kenn dara kon Seydi Tall tukulóor bu gàlli laa nag njool Fuuta moo dégg tukulóor ak Cheikh Ahmed Tidiane waaye ngeen xam ni bëgg nañu fu ngeen ko takk rek weesu na ndax lii jàngale bu rëy la ku fi jaar boo ñibbee war nga xam ni li xewoon jag saaw fekk fa njaboot Cheikh Alhaaj Omar fekk fa njabootu mam borom tuuba yéen moom bés bi nit ñi nañ ñu may jàmm suñu diggante bi dañuy wax ba yàq waaye duñu ko yàq ñoom ñoo ci yàqoon nag te ñu wax nag seen famille nag ñoom xanaa amuñu papa ak yaay amuñu ay maam nañ ñu dimbale ñu ngi sant presse bi ci seen taxawaay ci sëriñ sidi ahmed ndax man mooy sama sëriñ man sama taalibe dafa tukki badu man maay sëriñam xanaa maam Alpha ndax animu ma ak docteur Gassama maa ngi leen di nuyu fa tabaarakallaahu ñu sant leen presse bi gërëm leen ci seen taxawaay waaye gërëm mbokk yi fi teew yépp ndax Sidi Ahmed joxu ci kenn paas ñi ci bare yónnee leen carte waaye dañu bëgg yàlla bëgg Seyyiduna Muhammad ba fu ñu ko dégg rek dem xeeñtu ji ko yal na leen yàlla fay yal na yàlla méngoo seen mbir ci biir ak ci biti ci barke yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wéttali ngeen yal na yàlla nekk seen wéttal ku yàlla wéttal wéttali doo wéet jamono bii nag ku ñemewul wéetaay doo am yàlla sama turandoo bàyyi maam Ousmane bii moo ñu daan wax ni doom na di wéttali ko yàlla ba ngeen di ndaw bu ngeen màggee fekk xale yi dem du leen saf ñu ngi sant jigéen ñi di leen ñaanal yàlla yal na yàlla barkeel sëy yi yal na yàlla barkeel njaboot yi ku ci bëgg borom kër te amaguloo ko boo gisee li yonent bi wax mooy nattukaay bi de man tardawna diinahu wa xuluqahu fa zawijuhu loolu la yonent bi wax jikko daal la wax ak diina ju rafet waaye xaleelu tey nag boo gaarewul benn pënk Mercedes yore caabi ji sol costume ak cravate ñu ni yorul dara te kat xale yu jigéen yi ma bàyyi loo leen xel ni yooyu gars yi dañ koy luwe ji de léegi waaw dañu koy luwe jaar ñëw nax la takk la benn yoon ñaari yoon dootoo leen gisati attention bàyyi leen ci xel waaye yal na leen yàlla may jëkkër yu am yërmande am sutura te mën leen yor ñi ci nek ci bir sëy itam yal yàlla barkel sëy yi ci barke yonent bi alayhi salatu wassalam yàlla bu mu nek suñu muju dajje yàlla bu mu nek suñu muju gàmm yéen ñep ci turu serigne Sidi Ahmed jazakumullahu anna khairan wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته